ki ñu rey mu ngi tudd Louis Magré Ndong di ñaawlu li xew parce que nit liggéey wàcc war a gis njabootam ñu boom ko comme ça yoonum nekku ci parce que ñi naan nañ dañ ko juwaarle parce que tenue bi mu sol ndax gardien la loolu rafetul. wax ñi nga xam ñëpp li ko wax mooy benn benn wax la ñu wax liggéey jàpp ñaamburam dem géej jënd jën ñoo toggal ay doomam lekk jabaram sax du ko xaar ci togg kon xam nga kon kooku góor yàlla la donc euh, nekkul même religion comme moi. mais ku jàpp ñaamburam ku ku ku téye boppam la fee yi mooy démb manifestation bi sa fait trois jours ñu ngi manifester gars yi def lu neex démb nag dafa am lu amoon am si lu am si diggante bi mooy dafa am ñoo xam dañ civil ñëw di jàpp booy ñaar xaw ma kenn ñu ñëw civil lu jàppul booy booy nag loolu lañu mer moom moom dafa liggéey joon wàcc di nuyu ay collègues parce que dégg naa ancien militaire la mu nuyu wàcc ñuy gars yi di ñibbisi booy tekka ni maanaam koo xamante ni indicateur la wala kuy ñëw du comme ni ñu defee booyal ku jàpp ko. waaw fekk moom dafa liggéey wàcc rek di dugg si koñ bi booy koj ko naan si moom nga bokk ak yooyu commencé kaa dóor mu leen man fii laa dëkk mën ma ñëw bokk si bokk si ñi di ñi koy défendre tikkatee ak beneen booy boo xamante ne nii lu ma wax turam mais ñëw na moom tamit jàpp ci défendre défendre di ko défendre ñun balaa ñuy egg si fekk na booy toj nañ ko gaañ nañ ko def ko lu bëri. ñun ñu ñëw dajji buntu kër gi sax pour mu dugg rawale ko man si laa retourné pour ñibbi si sama kër dégg jabar ji di yuuxu ma oññee ko waat ñoo fekk mu daanu si laa si lañ ko jàppee yëkkati ko yeb ko si taxi yóbbu ko si yoon bi sax yàlla yàlla def liy gën bi ñu àggee hôpital gars yi xool na xam ne kii dem na ñu toog fa nag doon xaar papam ñëw doon jege parcelle di ñibbi si di ñëw si hôpital bi pour assister ko daal après man ci laa ci laa ñëwaat pour jël si carte ak yooyu noonu jël carte d'identité fekk carte d'identité réeraane la ci gars bi ñu ko doon sëngatoo di dóor yooyu noonu jabaram jox ma carte d'identité mu oññee ko waat fekk fa gendarmerie ñuy def constat bi defaale déposition yi yëpp biñ xoolee ba pare après ñoom bi demee di xool ci corps bi li ko li gaañ-gaañee yooyu noonu si nañ gis jam bi. lu ñu xool bu baax lu ñuy def vraiment naqar rek moo fi am naqar moo fi am euh, parce que soxnaam ku baax la soxnaam jàmbaar la. te lépp loo xamante ñu ci ne te ba pare di néew di doole donc ñu ngi wax vraiment peut-être nañ xaar suba autopsie bi lan lay joxe ñu xam mais daal li ñu jàpp te jàpp mooy euh, li ko rey daal mooy ak manifestant yi ñoo ko attaqué ba mu jëlee ci ba mu faatu ci donc loolu daal lañ ci mën a en tant que nag ay kilifa nekk autorité ci dëkk bi mu nekk aussi suñu njaboot bu ñu ñëwee euh, lañu xam ne vraiment euh, li fi xew ñaaw na trop ñëpp di ko ñaawlu boo xoolee koñ bi kenn nekkul parce que waa ji amul woon xaar ma yàlla ak kenn jabaram aussi amul woon xaar ma yàlla ak kenn waaye comme dafa nekk ci loxo yoon ak autopsie dañuy bàyyi rek ba suba incha allah ñu xool naka lañ ci euh, waxee wala naka lañ ci avancé pour dossier bi dem incha allah. man boog gendarmerie bi affaire bi amee ba ni mu jeexee ba ni waa ji gaañoo Louis ba ni mu gaañoo gendarmerie benn yoon la fa ñëw te si dernière waa Philippe ñoo leen woo gendarmerie brigade foire ñu ñëw def constat bi. def seen seen déposition ñu wax leen lépp nu mu demee ñu bind après ñoom ñu bëgg a xam ni xew ñu dem si corps bi di def di def analyse si corps bi si lañ gisee sax jam biñ ko jam ñu xam ne ñii kii dañ ko jam moo tax mu dee. kon du bal. non du bal gisuma fi bal luñ dóor parce que di début à fin lu bëri fekkee naa ko mais amul dara loo xamante ne arme arme blanche sax gisuma ko parce que man jam bi sax gisuma ko parce que sama sama kaw la tëddoon. deret bi yëpp man ma loola ma jaaxal sa deret nan la mën a wàccee tañ gaañ ko si bopp man gis moon sa gaañ bi si ginnaaw bu ñu ko wàccee si laa gis sama yaram bi sama tubé bi yëpp takk deret si laa xam ne kii gaañ bi metti na après waa gendarmerie sax ñoo wane jam bi ñu man gisuma ko woon wax dëgg yàlla lu bëri fekkee naa ko mais gisuma woon loolu booy moom mënuma si identifier kenn parce que mbooloo nañ te mbooloo mën a fi ñëw naan kii la kii la kii la kii la ñi doon dóor man man ñi sa gaañu naa si te dama doon def lu baax rek yàlla xam na loolu dëkkandoo la si koñ bi la dëkk nekk si bi laa dëkk waruma toog seetaan ñuy def lu ñaaw dëkkandoo si koñ yaakaar naa ne coowal ngor li démb ngor kenn manifesté wul donc ñun li ñu jaaxal sax mooy pour pourquoi manifestation yoof bi parce que waa ngor ñoo amoon problème président recevoir na leen wax na ak ñoom ba ñu dal ba démb dara xewu fa kon li xew yoof ñun jaaxal nañu ba ab doomu jaamu di ci faatu donc loolu aussi ñun aussi question bu ñuy posé la en tant que ñu dëkk Yoff on veut savoir vraiment lan moo xew ak lan moo waral manifestation bi démb. ba ñu ciy rey nit ay manifestant ay jeunes jël doomu jàmm rey ko comme sax parce que Ngor dara xewu fa démb. manifestation yi waa Yoff yi lu dama siy wax lu lu lu tuuti te bëriwul mooy manifestation yi d'accord dëgg la nee nañ garab bànqaas buy daanu moom garab buy daanu moom meññanteeg léppay daanu. ñoom affaire waa Ngor yi moo leen dugal si manifestation yi te fii ay xale yu ndaw rek ñoo fi manifester man du taluma ay manifestation di dem parce que am naa leneen lu ma tal fii ay xale yu ndaw rek ñoo fi nekk di ay xale jigéen ñi ay xale yu jigéen ñooy génn sol seen tubéy ni manifestation moo leen neex mais ñoom boo leen laajee région li tax li war a manifestation kenn du la ci wax lu concret ni la lii moo tax ñuy manifester affaire ngor nañuy wax affaire ngor ngor la yoof yoof la ñoom bi ñu amee problème ñëw nañ jël ay gaal ñëw fi teer seen blessé ñu évacué leen yóbbu leen d'accord ñoom ñu ngi dund lu metti mais ñun li ñu war a mën a taxawee si ñoom mooy dem jàppale leen seen blessé jàppale leen seen kër yàqu-yàqu lu dajale suñuy dërëm ak suñu lu ñu am ak lu ñu am dem dimbali leen ko ñu jàppale si mais pas ñuy nekk di taal ay affaire di sonal nit ñi parce que ñun ñoo dëkk fii si croisement bi lépp luy luy mën a dal si ñun ñi dal benn si si suñu mbokk suñu mbokk bi gaañ bi Louise mi loolu kon war nañ si mën a jogaat man damay wax benn damay lancé benn ñun ñëpp sa ay sénégalais nañ lu ñuy xeex ñoo ko bokk mais war nañ mën a jóg xool ni ñu mën a xeexee loo xamante ne nii kenn lu ci gaañu kenn lu ci sonn te lépp waxtaan la du loo xamante ni dañ fiy nekk di taal di semer le bordel parce que boo fi boo fi yàqalee nit boo fi yàqalee nit yow yàqal nga sa bopp yàqaloo yàqal nga yàqal nga nit kii kon ñun sénégalais nañ liñ bëgg xam nañ ko nañ toog ñu waxtaanee ko mu jeex ku nekk nekk sa jàmm loolu lay lancé Sénégal gépp ñu nekk si jàmm jàmm moo gën lépp. xam nga ñun ñooy taal sax. je peux pas identifier man mënuma identifier ñu ñooy taal sax xamuñu lan la parce que des fois da ngay gis ñoo xamante ne man je sais pas ba buy tàkk peut-être doo si kii mais jeunes yi est-ce que réellement ils sont de Yoff mënoo ko justifier ñuy taal est-ce que réellement Yoff la mënoo ko justifier donc du ma ci du ma ci ci avancer parce que man sa xaw ma ndax réellement wala ñun ndax waaye Yoff ñoom ñooy génn di taal wala keneen ak keneen kenn mënu ko justifier donc li ñu mën a wax rek mooy. nañu revenir à la région parce que li xew fii démb à Yoff dafa ñaaw rey nit dóor ko ba mu dee loolu dafa rafetul te képp kuy jeune war nga xalaat ëllëg bakkan dafa foor ku koy yóbbuwaale ku yóbbu ku rey bakkan yóbbuwaale ko ak sa conscience tranquille ma xam ne vraiment am na beneen beneen bi sopp mooy aussi ja soxnaam si bi ma waxee moom nee na dernier li jëkkër ji mujjee wax mooy sama kalpe yóbbu nañ ko ak sama téléphone après loolu la ma wax. voilà donc calpem ak téléphone ça veut dire am na lu si nekk ñuy agressé ñan la ñuy taal ñan la ñuy sànnanteeg la il faut ñu si loolu vraiment di demande rek que li xew fii dem yoon def ci liggéeyam. état bi mooy njëkk mooy première responsabilité bi parce que man du wax ni su ma wax naan ay président yooyu damay nekk damay damay damay damay damay demee mais dama naan état bi dama naan gis nga yoon xam moom état mooy yoon dama ni yoon. bu defee yoon dëkk bi tegu si yoon mais yoon bu deful yoon dëkk bi du am yoon man loolu laay wax chaque jour loolu laay wax yoon bu defee yoon rek dëkk bi am yoon mais yoon bu deful yoon dëkk bi du mës a am yoon tam damay damay nga mbaal ma tuuti damay lancé waale Sénégal ay nitu baatin ñu ngi fi ay nitu baatin ñi ñi may wax xam nañ seen bopp ñi xam lëwalu aaxiru zaahir baatin xam nañ seen bopp ñoom xam nañ ay nitu baatin lañ am na loo xamante ni ñoom mën nañ ko lijjanti te nit du xam te kenn du xam kenn du yëg ni ñoom ñoo ko lijjanti yenn yenn yenn waa nitu baati ni lay lancé message lii jóg leen si ngeen saafara si li ngeen mën seen kéem kàttan waxuma ñi nga xamante ne toog si réseaux sociaux di wax de nitu baati nii laay wax ñi xam lëwalu laax zaayaru baati ñoo ñooñu dégg nañ bu baax ñu wax jóg leen ngeen wet ngeen ngeen toog ngeen wakeelu xasbunallahu laa ni'mal wakeelu ngeen wakeelu ci yàlla ngeen ñaanal ñu yàlla suñu dëkk bi delluwaat ci jàmm ñi ñu nekkaat ci jàmm ñu dund jàmm loolu lañ xam ñun Sénégal man maa gën a ndaw ci Sénégal damay lancer loolu rek.